question boo xamante bëgg naa la koo laaj parce que euh, euh, day xaw a difficile tey jii nit ki bu ñëwee yor ay bëtam rek di xool sa kër euh, du mën a xam ndax taal bi seen fàndu nga taal bi seen Touba wala taal bi zi ñëpp ngi fi seen photo dafa karamba dafa dafa jox cër wala dafa gëm ñi nga na ñoom am ci ak wax parce que man lépp si xeetu révélation bi may dox la rek mm-hmm. man sama révélation si àdduna loolu la boo gisee ñu yaakaar damaa reew wala kii damaa naqa deret non dama direct ni may waxee. photo Jésus bi ko waral. bi li li ko waral mm-hmm. niñ may décoré may ma photo Sëñ Fallu noonu lañ ma ko décoré may ma ko. te biñ ma koy may ñaar lañ ma mayandoo si benn tàpp si benn ngoon lañ ma may ñaar kenn ki Dakar la jógee kenn ki mu ngi jógee si dëkku village yi. ñu tombé nekk sama kër nekk tombé ñu jox ma ko comme niñ ma joxe photo yi ma def ko comme ni ma def photo yi te li tax ma gën gën si sawar parce que àdduna bi foofu damay wone comme chrétien bi ak musulman bi benn lañ tey chrétien bi bu xewlee musulman bi moo fay jiitu musulman bu xewlee chrétien bi moo fay jiitu kon am naa droit ma yor photo Jésus sama saal ak photo Sëñ Fallou photo ñëpp def ko sama saal maanaam loolu laa si jublu lépp ci révélation pour Sénégal ñun ñi doon benn. jaarale message. voilà. parce que des fois da ngay dégg kii wax ci chrétien bi dara wala nga dégg kii wax ci musulman bi dara yooyu warul am. bañ yooyu di am moo may jàngale lii def photo sëñ Fallou photo Jésus yëpp sama saal. waaw te bu ma si xool damay kontaan. Hmm? kii bu dee bëgg ngaa dégg dëgg bi ma ko defaree ba léegi kaan bu bees gis nga ko bi ma ko liggéey bi ma ko liggéeyee ba tey dafa yëngal Sénégal. kii moo waral coow li. cooli cooli yëpp kii moo ko waral kajjumbaa ama kajjumbaa li deret sàngara kese lay naan li mooy kajjumbaa maanaam deret ak sàngara kese lay dund lii ma yor nii te bu ko soxlaa dëgg day sab jinne la wala ku yor six cent nangam taalibi jinne yor lii nga naan kaa ndax jinne la non lu garaaw nga jàkkaarloo nii instant bi pouvoir baa ngi nii kii maa ko lii xam nga tey man sëriñu xale laa damaa saay saay kenn liggéeyalu ma gàllaaj maa koy liggéey maa koy defaral sama bopp jël sama temps mu laaj dugg si àll ma dugg fa mu laaj fanaan ma fanaan fa lépp pour noonu taxaw di ma xeex ak sëriñ yi nga xam ne dañuy taxaw booy bi xale la de kaa ñu teel a bor tànk yi booy bi tey booy bi temps mu ngi wax de xaaruñ jekkal ko dóor ko misil dañoo wax waaw moo tax kii arme la te du arme xale arme luur la kii bu doon bu doon nuñ koy waxee sax bu doon ay jamono yi jamono yi démb ay maam ñoo koy yor te maam bi koy yor boo ko gisee bala nga kaa gisaat yàlla xam Karamba. Mhm. dama am laata may ñëw fii benn koo xam te ni voyant lañ koy woowee. dinaa mhm. sax wax demoon seeti ka mu am lu mu wax ci benn suñu Sadio Mané na laata lii gént na jaan matt tànk donc jàpp na ni ministre blessure lan ngay ndax mën nga taxaw ni Sénégalais yi Sadio doon ko def dara comme ni ko bëri dañ ko mis dañ ko marabouté. boo dee mais loolu moo nekk Sénégal loolu moo fi nekk loolu jarul laaj ba si mendi mii nii ñaata weer laa ko wax man na 3 mois xaw ma 4 mois man nan bala moo dem si kii na fexe mu mu sangatu nañ ko si mendi bi ma koy wax léegi Sénégal yi la moo tax yooyu ñoom duñ koy bàyyi xel ñoom à chaque fois nuñ lay rek xel pour lan ko day day day day inquiété rek. newoon naa leen bu sangatuwul lépp lépp si cadre mystique moo koy def. parce que tey dañuy nekk si post yoo xam ne dañuy xëccoog seeni moroom seeni moroom dañuy am ay sëriñ tey boo fekkee ku mel ni karamba nga ni ko defaral ma lii pour ma mën a am lii nga yor sa xaalis dóor si table ji da lay liggéeyal ca nga xamul góor gu rafet ku koy jox xaalis kese la xam. n'est-ce pas. commerçant bi xamul jigéen bu rafet xaalis kese la soxla. merci. merci. kon Sénégal yi liggéey wala non du ma ni sénégalais yi du ma ni la sénégalais yi ñoo ko liggéey. mais dama lay dama lay xamal ni comme comme ñoom seen poste yi ñuy nekk di liggéey. yi ñu nekk di moo xam équipe bu Sénégal moo xam équipe bi muy football Europe comprendre nga maanaam day amay xëccoo. d'accord Mouhamed kii nu mu tooyee sax eh, moo fu nekkoon moom Mouhamed Salah. la moo lan moo la wóor ni Salah doon doonu ko def ay affaire te Salah du nit kii. naar la comprendre nga. loolu yëpp gis ngeen ko si kii bi man li may tàggatoo mooy Karamba Karamba Sénégal Karamba dafa bëgg Sénégal kenn gënu maa bëgg Sénégal su ma bëggul woon Sénégal tey sama réew tey su ma neexee lu ma neex si ay millions dama koy laaj million yaa ngi nii jet privé baa ngi nii man leen déedéet man sama boo sama xam-xam bii fu ma toog damay liggéey parce que su ma jëlee jet privé dem ñu ne voilà daa bëggoon a dem su ma encaissé xaalis ñu ne ma wa xaalis bee taxoon muy kon comme yëg nañ ma oo nañ ma président woote na yabal na fi ay ndaw ministre woote na te waxoon naa leen ko presse bi ñëw na il faut appeler il faut appeler seen baay il faut appeler seen baay il faut appeler il faut appeler naa am gëm-gëm gëm gëm-gëm bi doomu aadama yi di doxe nga am ni doomu aadama yëpp kenn xamu si ban jour ngay dee seen gëm-gëm boobu ñuy doxe man moom laay doxe ak jinne àdduna yi ma àndal di ñaanal Sénégal pour yàlla may ko ndam parce que Sénégal ni ñuy doxe lañ war a bàyyi suñ ko bàyyiwul nit dina bëgg a yéene pour ñaanal Sénégal sax du ko ñaanal parce que lépp yàlla moo ko yor parce que da ngay préparé pour ñaanal Sénégal de mais am na ñoo xam ne ñu ngi lay waaj pour ne la yóbboo faar nga dégg nga fi may waxee tey man nga waaj pour ñaanal Sénégal de mais am na ñoo xam ne pour nga xam ne Sénégal dafa bëri ñoom dañoo soxor am na ñoom dañu xaar yow nu la yóbboo faar te yow yaa ngi xool noo mën a def ba Sénégal am ndam bu ko defee la ngay liggéey sax yow dootoo si sax sawar nañu moytu loolu loolu buñ koy def dañuy yàq sénégalais yi